agsi nañu ci euh, euh, ponk bu mujj bu euh, Infos ak sunu gan di soxna Marième Sakho Dansokho madame Dansokho maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di fay sa jotaay bi yépp di nuyu seen. Mm-hmm. auditeurs yeeg téléspectateurs yeeg. actrices mm-hmm. yi également. Mm-hmm. très bien merci beaucoup moom sunu gan nag Chérif mooy secrétaire général au syndicat des professeurs du Sénégal. waxtaan wi nag Fatou li ko waral mooy njàng meeg njàngale mi commencé na yënguwaat ni Mamadou Diop Kasro doon wax yëngu-yëngal jàngalekat daanaka suba ak ginnaaw suba nee nañ dun dañuy bënk seen i loxo madame Dansokho yow nga jiite woon syndicat ay jamono bokkoon nga ñi ñi daa yëngu-yëngal ñu gëj laa dégg foo ne ak ci loo gannaaw bu ma leen gërëmee sant leen ci invitation bi ba pare. Mhm. Euh, maa ngi fi euh, xam nga da nga am foo toll. Mhm. da nga jiital xale yi nekk ci ginnaaw. Mhm. loolu benn réalité la. waaye yàlla dafa def également gannaaw ba ñu defee élection de représentativité yi ba pare ah, syndicats yi xoolaat seen bopp. Hmm. regroupé wu ci ay cadres su ko defee euh, cadre bi mooy gën a fës. que syndicat de yi ko composé. Hmm. yooyu yëpp ay éléments la mais ñoo ngi fii ñoo ngi ci liggéey bi. ah booleeg euh, yeneen responsabilité yi ñoo am au niveau international amul amul doole jum représentatif ba mën a bokk ci table négociation yi wala jiite combat yi waaw xam nga syndicat yi dañoo dañoo xaw a takku mhm. ba pare euh, ci année quatre-vingt-quinze yi ba léegi dafa am benn modification ci système de recrutement yi mhm. bi modification yooyu amee beneen forme recrutement bi indi yeneen i xeeti personnelu éducation bi ñu ñëwee ñu diriger leen ci ay organisation su ko defee mu indi xalaat ci seen biir boo xam ne bii day mel ne ñi fi syndicat yi fi jiitu woon nekkuñu di leen représenter comme ñoom ni ñu waree. Mhm. surtout que neexul ba neexul système de recrutement bi dañ ko xeexoon parce que àndul woon ak yoon. ñu xeex ko xeex boobu ba war ko yóbbu OIT pour wane ne système de recrutement bi teguwul ci yoon parce que dafay enfreindre euh, euh, li nga xam ne mooy réglementation bi même suñu loi dëkk mm-hmm. donc ba ñu ko xeexee mm-hmm. mais xam nga comme nguur moom xeex ak moom dafa jafe comme booba loolu la ñu bëggoon ak injonction wu institution financière yi euh, ñu imposer ko bañ ko imposer indi volontaire vacataire ak ñoom seen ak yooyu lañ ca teg mooy ñii fi nekk dañu leen a compte su ko defee ñooñu dañuy ñu créer leen seeni syndicat te li ñuy wax ñu am ci firnde yu leer ne ñoom régime yi dañuy seen syndicat ñoo créer syndicat yi hmm. diriger fa euh, enseignant yu bees yooyu jox waaw kooku comme loolu moom yàgg na fii. mais comme ñan par exemple madame Dansokho li Chérif wax <laughs> <laughs> bon xam nga comme euh, valeur du mouvement syndical nag buggul. mais c'est de l'histoire waaw c'est de l'histoire mm. mais même si c'est de l'histoire nous sommes encore la à essayer de les réunir pour que ñu demaat vers l'unité parce que loolu mooy intéret wu jàngalekat yi soo fi nekkee di wax yenn façon wax yi ci ci ci ñun ñi nga xam ne ñooy doyen yi mouvement bi day indi yàq boo xam ne bii day day day gàllankoor suñu liggéey mm-hmm. kooku dañu ko mën a def valeuru syndicalisme permettre ñu nag ñuy euh, attaquer beneen organisation léegi ñun suñu suñu objectif rek mooy fexe ba nga xam ne syndicats yi dinañu regrouper wu nekk benn ndax foofu la intérêt jàngalekat yi nekk foofu la intere système bi nekk. Mhm. alors tey ah. jàng mu kawe mi gis nañu ni yëngu-yëngu yi bari na Bambey ngay yëngu Université Cheikh Anta ma ngay yëngu UGB ma ngay yëngu tey jii euh, seen taxawaayu étudiants yi ku nekk gis na ko ci li nga xam ne mooy wàllu solidarité. Ah. ndax loolu yi tamit ban euh, jàngat nga ci am ak ban gis-gis la ci sa syndicat am. waaw gannaaw bu ma naqarloo li nga xam ne moo am fi mu nekk nii. te ñu war a moytu mu gën a yaatu ndax fi mu nekk nii Bambey la départ euh, Dakar dugg na ci Ziguinchor a ngi ci euh, dafay nekk li ko li yëkkati xeex bi dafay nekk rek guddo bi nga xam ne moo déborder le vase bi ndax problème yi dañoo nekk dañ fi nekk déjà mhm. problème mu infrastructure yeeg euh, yeneen i problème mhm. euh, problème mu recrutement yu ñu deful rek euh, déficit de personnel yeeg yépp nekk fi mhm. donc lu tuuti rek dafay daal di indi débordement Ziguinchor dugg na dakaar dugg na gis nañ li fi xew démb ah ma ngay wéy ca Bambey ah, Saint-Louis su ci duggee bu voyez la lan la nar indi hmm. ba pare contexte bi ñu nekk également xam ngeen ne dafa nekk contexte boo xam ne bi ah, yombul hmm. euh, de sorte que euh, ku ci nekk mën nga xalaat ne contexte bi su ma ci réglewul c'est le moment ou jamais hmm. c'est normal su ma ci réglewul euh, su ma ci taxawul ba ñu régler revendication yi mën na am dina yéex a réglewu lii donc mooy indi problème mais yaakaar naa ne suñu jiitaloon dialogue solution suñu jiitaloon dialogue. ana dialogue social bi parce social bokk na ci mbiram syndicalisme yooyu ñaxtu na. <laughs> waa dëgg la amatul ci réew waaw xam nga dialogue dafa am dafa am yu ko war a lal. waxante dëgg. waxante dëgg li ñuy wax ñu teg ko ci lu leer. kenn bañ a jéem a nax sa moroom mu bañ a nekk jeu de dupe. parce que su nekkee jeu de dupe rek ku nekk mën nga analyser ku nekk xam nga fa nga war a mën a teg sa tànk donc suñu ko tegee ci yoon di waxante dëgg ku nekk xam la mën a nekk ak la mënta nekk yaakaar naa ne jàmm mën na am. madame Dansokho waxtaan bi euh, euh, lee xew ca université de Bambey. Mm-hmm. ñu euh, tas li nga xam ne mooy kuréelu. Euh, étudiants yi di jël décision de façon unilatérale ku nekk xam nañu ku nekk am nga prérogative mais am na structure yoo xam ne yi dañ ko war a teg ci waxtaan surtout loo xam ne lii day impacter njàng mi xam étudiants yi à la limite lan lañ ci xalaat su fekkee bokkul ak assemblée de l'université bi li nga xam ne moom la fas yéene également mu waxtaan ci ak ñoom ba jéem leen a convaincre su ko defee mu mën a yomb mais mënuloo tëb rek ne euh, tas naa et soo tasee mooy meilleur moyen indépendant mhm. parce que dootoo amati interlocuteur mhm. ah. mënuloo wax ak kenn ku nekk <coughs> Aïssatou oui ah. madame madame Dansoxo mhm. euh, man li ma la euh, li ma bëgg a xam ah, mooy xam nga fii Sénégal dañ euh, tàmm euh, kuréelu euh, enseignant yi seen syndicat yi chaque chaque fois chaque année ngeen déposer plateforme revendicative déposer préavis dem grève mm-hmm. bu ngeen grévé après mu am impact sànq maa ngi naan lu am impact si jàng bi mais loolu mooy à mon avis premier frein ci qualité enseignement bi mm-hmm. et loolu dafay jouer après si la qualité de de de en, en tout cas des diplômes même yi ngeen di joxe parce que xale yi seen quantum horaire finalement buñ ko tudd après da nga am impression que ni dañ leen di bëmmax rek ñu pousse après euh, on les envoie un peu au casse mm-hmm. bu ñu paree li ñuy joxe du nekk rayonnement wu Sénégal mm-hmm. ndaxte xale yi fi chaque jour boo déggoo benn étudiant euh, wala benn lycéen mu làkk français ci mm-hmm. interview vraiment tu as juste envie de de une balle la tête quoi parce que tout Euh, xale yi euh, pour moi c'est pas de leur faute c'est parce que yéen ñi nga xam ne yéen a ngi euh, jàngale yéen aussi aménagé wu leen seen seen grève yi que je trouve légitime ndax kenn ku ne hmm. ñi ay liggéey liggéeykat nañu ay ay ay ay kii lañ kenn ku ne am nga tamit loolu naqari nga am noo koy fësalee hmm. mais pour man yéen aussi ay parent ngeen seen doom yi dañuy jàngi ngeen war a aussi si li ngeen defee seen grève yi ngeen war a tamit xoolaale un peu Euh, xale yi naka ngeen def ba mu bañ a impacté. ci seen qualité seen avenir seen qualité enseignement. Mm-hmm. et puis aussi le fait que euh, les gens se perdent un peu. Mm. sur euh, yéen seen préavis seen revendication yi pour moi c'est contre-productif parce que li koy indi mooy chaque jour on, on, on, vous êtes à mille préavis. 1000 plateformes revendicatives donc on sait pas euh, finalement on s'amène les pinceaux on sait pas lan moo lan moo gën a prépondre lu gën a kii feneen beneen beneen bi may jeexalee mooy euh, chaque fois euh, da ngeen dem toog si table de négociation évidemment toutes les guerres se terminent autour d'une table mm-hmm. bu ngeen bu ngeen toogee après euh, ngeen waxtaan ak autorités yi ngeen génn ne sursoir nañu wala suspendre ñu et cetera mais euh, après euh, quelque temps après euh, c'est encore rebelote donc yooyu bu yàggee euh, est-ce que autorité bi dina leen jël au sérieux beneen tamit mooy ñun ñi nga xam ne du du ci sëlay du ci mëlay suñu doom ñoo fa ne hmm. mënuñu leen dara ndaxte xale yi mënuñoo jàng du yéen yéen yéen jàngalekat yi jàngalewu leen après finalement si nous qui avons payé des pots qu'on n'a pas cassés hmm. donc laaj centrale mooy naka la ñu mën a def Sénégal ba ñu am benn année scolaire boo xam ne apaisée de part et d'autre parce que yéen yéen a joxe bon exemple xale yi si yéen la ñuy root mm-hmm. yéen bu ngeen di grève ñoom tam après pour on wuyaay ñu ñoom itam grève mm-hmm. te et puis ils sont inconscients quelque part mm-hmm. absolument bon <laughs> merci pour sa sa ce, développement bi mais euh, li may njëkk a wax mooy ne que da ne ñun ñi nga xam ne suñuy doom lañu mais ñun ñooñu ñun jàngalekat yi ci lañu bokk. xale yi. suñuy doom lañu suñuy rakk lañu su dee man mën naa ne suñuy sët lañu. kon lépp lu ñu leen bëggal mooy ñu jàng ci anam yi gën a wér. wax ci dolli également jàngalekat jàngalekat li nga xam ne mooy satisfaction mooy ñi muy jàngal réussir. kon benn jàngalekat buggul dem grève su demee grève rek ñàkk pexe la euh, nga ne chaque année ñu def préavis mm. ak plateforme mais soo leen seetloowee di ngeen gis ne depuis plus d'une décennie bientôt deux décennies mm-hmm. c'est les mêmes revendications mm-hmm. soo leen xoolee préavis yi lan moo ci gën a nekk respect des accords mm-hmm. kon lii yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole. Mm-hmm. ñii signé ay accord mm-hmm. bañ ko mettre en œuvre. Mm-hmm. ñooñu ñoo indi problème bi. accord yoo xam ne yii depuis 2014 lañ ko signé. bi président bu bees bi ñëwee mu ne nañu def li nga nañu signé li ñu mën. ñu ne dañuy revenir ci accord ya ñu signé woon. am yuñ ci segg pour mu méngoo ak la ñu mën ñu signé mais ku ne li ma mën laay signé soo signé mettre ko en œuvre. mais i paraît que. mais booba ba léegi. li ñu leen satisfaire tamit bari na ci point de revendication yi ne nañu ñoom dem rek Seydou Gueye wax na ko fii. ci presque ñaar fukki poñ ak ñeent daanaka ñaar fukki yeeg nangam satisfaire nañ ko donc mu mel ni que euh, plateforme dafa war a évoluer bu fekkee ni fukki poñ la ñu satisfaire juróom-ñeent yi xanaa benn bi war ngeen ko mën a muñ ba jàngal ko. xam nga xam nga loolu yomb naa wax mm-hmm. mais. su fekkoon am nañu opportunité ñu def face à face. Mm. face au grand public. Mm. ñu càmbar point par point. lan moo taree face à face boobu am. <laughs> mais euh, xam nga kenn mënul ñun jàng syndicat yi mënuñu imposer wu. il faut ñi nga xam ne ñooy autorités yi. Mm-hmm. accepter. accepter lu mel noonu pour mu mën a nekk. lan moo mënul ñàkk fi mu ne nii pour ngeen delluwaat ci classe yi jàngale. fi mu nekk nii li ñu li ñu wax mooy accord yi ba ñu ko signé ak léegi dafa commencé jéggi dayo accord yi lañ bëgg nga tojal ni ko askan bi xam yéen lan ngeen di wut exactement pour mën a jàngal xale yi. mais carrière jàngalekat yi. Mm-hmm. carrière jàngalekat yi li ko gàllankoor dafa bari seen problème mu intégration yaa ngi fi seen problème mu euh, ci seen mooy seen évolution carrière problème la problème mu infrastructure yi nga xam ne parce que jàngalekat yi en général su ñuy wax dañuy defe ne ñoom li jëm ci ñoom kese kese moo leen ñor mais problème mu infrastructure yi. maanaam Seydou Gueye li ma fii parce que école bi lu leen seen bopp rek. lu lu leen jëmale kanam mais loolu xam nga c'est de bonne guerre. mais suñu càmbaree revendication yi dinañu xam li ci ëpp mi ngi jëm ci qualité qualité enseignement bi damay faral di wax loolu warul nekk sax xeexu jàngalekat kese. dafa war a nekk xeexu. ñépp état bi en premier mais parents yeeg mm. communauté ñépp dañ ci war a taxaw mm. ndax pour lu jëmalee jàngu xale yi kanam la gis nañu abri provisoire yi kat abri provisoire yi ni ñu toll ci réew mi kenn mënu ko xam kenn mënu ko natt mm. abri provisoire ñépp xam nañ ne euh, du mën a commencer en même temps euh, au 1 octobre à la date de l'ouverture mhm. balaa école di tëj am na zone yoo xam ne yi particulièrement foo xam ne fii nawet bi daf fay teel a njàng ma mënatul nekkati mhm. am na période boo xam ne bii ngelaw ak poussière dafay bari mhm. ah, di nga def tour ci ci ci établissement yi dans le pays nga gis ay yoo xam ne yi ay saaku ceeb yu jeex lañ ko lañ ko defaree am yow xam na yii ay ay ay ay ñaxak yu kenn xamul soo fa duggee si ndax yeeg yëpp di jaabante ah ak jaan yeeg yëpp donc jàng mënu faa am donc loolu suñu koy wax du pour jàngalekat bi kese. mais pour ndongo yi également la. Euh, moom madame suñu am na ku ne <laughs> moom madame en classe hein <laughs> si pare li ci Aïssatou doon wax rek. ci ci stratégie bi soo ko xoolee parce que yéen tamit souvent da ngeen di xëccoo nguur gi. ngeen ñëw paralyser année bi mais ñëpp xam nañ ni comme ni ñuy wax année bi du blanche. Mm-hmm. à la fin. di ngeen dañuy sauver les meubles mais su ngeen ko defee tamit mais après comme ni koy sut waxee enfants qui vont en pâtir parce que dañuy jàll ak niveau bu faible mais l'année prochaine aussi ñu répété waat même chose kañ lay changer wala beneen stratégie wala d'accord foofu euh, dégg naa li euh, naa ci ñëw xam nga jël qualité enseignement bi ak faiblesse su niveau yeeg yooyu yemale ko rek ci grève yi dafay nekk lu trop restrictif. c'est vrai. c'est tout un système qu'il faut c'est tout la qualité n'est pas n'est pas euh, euh, nu ñu koy waxee euh, entamée seulement par par les grèves. mais la qualité de de de recrutement des enseignants. la formation des enseignants yooyu yëpp. day impacter même l'environnement école bi. waaw maa ngi ñëw day impacter parce que lu jëm ci enseignant bi laay wax déjà nañ ko recruter nañu ko former yooyu yëpp temps de formation bi lépp dafay dafay impacter ci qualité bi. nga ñëw ci élève bi du ay nga ñëw ci environnement bi ñun ñëpp gis nañu environnement enseignement apprentissage yi. nekkul ay conditions yoo xam ne yi dina permettre njàng mi ñu mën ko amal ci anam ya ya ya ya mu gën a baaxee pour euh, qualité bi mën a mën a mën a antu ak yeneen ak yeneen donc fo enseignant bi intrant de qualité mhm. environnement bi intrant de qualité mhm. avant ñuy ñëw ci kantom bi mais yooyu yëpp saa incombe à qui. mais déficit qui recrute bi amee ci canton bi. qui recrute ça la situation. qui recrute qui forme c' est l' état qui recrute c' est l' état qui forme. mais mais yéen syndicat yi ah. dem ngeen participer ci formation bi même bu état bi c'est vrai que moo ko waral. parce que ceko fi ngeen di jël ci salaire yi tey war naa mën a. mais ñun ñun ñu ngi ñun ñu ngi def li ñu mën formation. ñun ñu ngi def lu mën ci encadré ñoo ngi def li ñu mën ci encadré. suñuy militants mais il faut accepter que c'est un le rôle régalier de l'État de former les enseignants pour que euh, njàng mi mën a aw yoon euh, mu mën a impacter Euh, personnes ressources les ressources humaines de ce pays-là impacter le développement de ce pays mm-hmm. mais su fekkee defuñu ko ah wax dëgg neex yàlla day ba pare nag jàngalekat bi tamit liggéeykat la dafa am ay droits yu muy dépendre yu muy défendre c'est pas wax dëgg yàlla c'est très sensible nag parce que ay xale la ñu amee euh, liggéeykat beneen mën na dem grève euh, way jur yi duñ ko sentir parce que xale yi duñu dem dellu si mhm. mais bii nag di ko tax a metti mooy xale yi dañuy dem dellu si ci kër gi mhm. su ko defee parents yi jaaxle mhm. sa booba la ñuy jóg te man dama xalaat ne parents yi war nañu aussi di mën a xeex pour que état bi mettre à disposition de, du système des enseignants de qualité bien formés parce que euh, seen doom yi dañoo war a am une éducation de qualité li ngeen wax d'accord naa ci il faut que ñu xoolaat si euh, stratégie de lutte yi parce que ni mu tasaaroo nii arrangé wul kenn ñun ñi arrangé wuñu parce que soo grévé trois mois nga perte loolu ci quantum horaire c'est année bi du blanche du mësa blanche parce que état du mësa nangu année blanche parce que mm-hmm. yamu waxante communauté international bi la loolu aussi ah, bañul bañul année bi blanche à cause de de nous mm-hmm. du pays mais partenaire yi lay sóoraale ak financier waaw ba ma mësee dégg benn autorité ne l'essentiel c'est d'organiser les examens j'étais scandalisée mm-hmm. parce que kooku xalaatul ban niveau la xale yi di génne di génne système bi ñu teg di pousse xale yi pouse xale yi bu mu am sax redoublement nañu leen pouse rek boo def euh, dix ans bi après ñu génnee leen ñu nekk des des des analphabètes euh, retourner des analphabètes dans de euh, sur le sur le territoire c'est pas c'est ça leur importe peu donc yooyu yëpp c'est les problèmes yoo xam ne yi euh, éducation bi dañ ko war a jël à bras le corps xam ne c'est une priorité su ñu bëggee émergence euh, te négliger éducation bi mënta sotti mënta sotti mm-hmm. oui bonjour euh, donc euh, bonjour. Euh, j'avais deux questions li ma bëggoon xam mooy tey yaa ngi wax sànq ne ñaar ki at ci ginnaaw ba léegi ce sont les mêmes revendications ak peut-être lu ko ëpp Euh, où se trouve véritablement le problème lan moo tax ba négociation yi mënul fexe ba aboutir les responsabilités mm. elles sont partagées ou bien elles incombent à l'État ou bien au syndicat yaa ngi wax sànq am na ci ñoo xamante ne ils sont un petit peu de connivence avec le entre guillemets avec le pouvoir mm-hmm. euh, beneen bi mooy euh, wàllu DMC ministère des finances annoncé woon na ko récemment que c'est réactivé Euh, est-ce que on avait entendu d'autres syndicalistes comme waa SAEMS waxoon nañ ci mais peut-être man ça m'avait échappé yéen lan ngeen ci lan ngeen ci xalaat ci ci près DMC yooyu. d'accord li may li may euh, euh, ci fi may jëkkee mooy li nga njëkk a wax. Mhm. mooy depuis presque vingt ans ou plus maintenant c'est les mêmes revendications. Mhm. par ñun am nañ ci wàll. il faut le dire. Mhm. ni ñu tasaaroo arrangé wul dara émiettement syndical bi daf ñuy affaiblir day permettre nga mën a utiliser ñi contre ñi mm. et cetera pour ne jamais régler les problèmes kon ñun am nañ ci part de responsabilité bu mag parce que si c'était un ou deux syndicats forts dans le système de l'éducation dinañu am force boo xam ne bii koo jàkkaar lool balaa ngay def euh, douze heures wala huit heures de grève boo annoncé huit heures de grève sax dinañu taxaw ci problème yi réglé ko mm-hmm. mais kooku ñun la mm-hmm. mais li ci des mooy manque de volonté politique gu les problèmes de l'éducation le fait de ne pas faire de l'éducation une priorité di ngeen am interlocuteur <laughs> xëy na ah deuxième question Marcel laata ñuy tàggoo waaw mhm. deuxième question bi mhm. mooy DMC dafa nekk loo xam ne lii loi moo ko moo ko fi tegoon tout à fait moo tax ma ne réactiver pour jàppale pour jàppale fonctionnaires yi du jàngalekat yi kese mhm. fonctionnaires yi parce que ñëpp xam nañu niveau de rémunération kii. soo soo leen jàppalewul euh, de cette façon là euh, xëy na pour ñu am toit dina jafe. mais bokk na ci seen revendication principale. waaw bokk na ci bokk na ci ah, revendication yi. am expliquer am na ñu bëri ñu dégg DMC ça passe mooy bool bi ngeen di lebal mooy bor bi nga xam ne. dafay euh, ci ministère des finances lay joge ñu lebal ko fonctionnaire bi. te du am intérêt. Mm-hmm. mu di koy fay pendant quarante mois et tout ça mm-hmm. euh, te du am intérêt su ko defee mu mën leen a jàppale pour ñu def ay apport et tout ça pour mën a am pour mën a am kër dëkkuwaay. loolu loolu mooy mooy dem si. alors madame Dansokho une plateforme elle est elle est elle day am ay points yu nga xam ne. Mhm. mën nañ ci euh, mën ngeen ci négocier mais il de a des points non négociables dont vous exigez la satisfaction immédiate. Mhm. tey jii ban point ngeen xam ne bu fekkee ni état bi rek laal na ko ngeen mën a delluwaat ci classe yi ba ëllëg ngeen euh, kaasaat leneen. waaw. Euh, mooy yi nga xam ne parce que plateforme minimale bi la joxe woon ñu signé ci ay apport mooy problème mu euh, carrière jàngalekat yi yoo xam ne yi loolu kenn mënu koo négocier carrière parce que sa carrière loolu rek nga am moo lay dimbale bis boo demee retraite également nga mën a vivre tant soit peu décemment mais état def na ay effort ci côté boobu madame. ensuite. Mhm. enseignants yi. il faut pas que ñuy évoquer toujours seen nombre ak yu xamul. Mm-hmm. pour ne pas pour ne pas moom toujours moom la ñuy wax nga yokkal benn enseignant bu nekk. sa va être une masse salariale alors que fi mu nekk nous sommes nous en déficit d'enseignants. Mm. nous sommes 5000 enseignants yi ñu recruter. malgré tout on est en déficit d'enseignants. il y a des zones yoo xam ne war kon. fii mu nekk nii soo xoolee le nombre d'enseignants ak les effectifs élèves di nga xam ne on est très en deçà du nombre d'enseignants mm. nécessaires pour que enseignement bi mën a mën a jaar yoon très bien léegi. Euh, lan la man laajati woon sax. Malick dernière question ah waaw li mënta ñàkk c'est la dernière question. jàngalekat yi ma doon wax ne il faut pas que ñuy évoquer toujours seen nombre. Mm. wax naa léegi ne le nombre est insuffisant. Mm-hmm. les effectifs on est en déficit. Mm-hmm. mais. Mm-hmm. Euh, le le le système de rémunération. ñëpp xam nañu ne euh, wax dëgg yàlla. dafa déséquilibré trop ba ñu ko waxee ba léegi ñu ne dañu koy dañuy def étude ñu def étude gis effectivement les disparités qu'il y a ba léegi mënuñu fexe ba teg ko ci table bi pour pour pour corriger ces disparités là Chérif waxtu bi jot na bàyyi ko parce que ñun jàngalekat yi dañoo bari loolu la Seydou Gueye wax fii de dem waaw mais mënta du argument très bien loolu merci beaucoup merci beaucoup soxna Mariam Sakho Dansokho secrétaire général bu syndicat li may wax daal du Sénégal léegi léegi ñu dem une bu l'observateur ak